mbokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey baalu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal di ndokkeel réew mi yépp ci dal gi ñu doon ñaan ci xew-xew ba doon jub yàlla may nu ko ca ñoo ngi ko ciy sant bu baax di ko ñaanaat ba faw ak dal ak jàmm di am ci réew mi bokk yi li fi jaar ba jàll ci nii mu fi jaare mat naa sant yàlla lool li ko waral mooy yàlla moom du mës nangu mukk di doon plan B plan B mooy suñ demee ba ñëpp rët ba kenn amatul pexe ñu ne nañ ko ñaan te bu sottee nañ ko bëgge woon ñu bëgg a jël ñaan googe sotti tega jawel ko ci jeneen jëmm moo tax waroom xam-xam yépp juboo nañ ci ne ku dul def léeg-léeg mu càmbar ab xolam ak pas-pasam xool fa mu tëlee woon ak fa mu lotte woon xam ne kenn rek moo ko fa wall woon muy subhanahu wa taala mu delloo ko lam moom bis dana ñëw kàttanuk suñu boroom ak coobareem leer naññ te fekk reccu amatul njariñ ndax nee na ci alxuraan bis dana ñëw nit xool jëfam pas-pasam gaw ko gaw jëf ja mu wóor ko ne leen lépp ay ak fàgguteefa ma ci ay yoxoom mu ne ak neexoon tey ma nekk suufaay yàlla na nu yàlla musal ca loola moo tax bu fekkee nit ñi dañoo am yitte juñ xamut fu muy saafarawoo nga xool doo am yoon wa jaar nit xool gis lu mu bëggut a gis ci ay naqar di dégg lu mu bëggut a dégg ci ay kaddu mu janoog suñu boroom ba suñu boroom bis ca ndox mu sedd dañoo war woote bis boo xam ne dañ cay sant yàlla bokk yi xew-xew bi bi muy jub ñëpp xamoon nañ ne fii rek lay mujj jeex muy lu ñuy nettali lu nekk nag jib na ci waaye bu ñu teeloon a xam ne réew mi moom suñu borom ci coobareem moo ko def ni mel mbooloo mi fi dëkk moo leen tànn boole leen loo xam ne kenn mënu koo séddoog moroomam mën nañuy xuloo nag xuloo boo ko déggee mooy kenn ku nekk jàkkaarloo moroomam wax la ko naqari waaye duñ mës a mën a xastante moom ndax kenn ku ci nekk lu mu wax te wuru koo wax bu duggee ci néegam li wér te wóor moom mooy li kenn xam rek la ñëpp yi xam ndax ñoo bokk fenn fuñ nàmpe dana réccu ci réccu boppam goo xam ne du ko wax kenn rawatina lu mel nii fi jaar jàll nag mi ngi nii fi ne nu ñuy xoolantee moo tax li ñu war a jëkk def mooy sant yàlla ndax ñi nga xam ne seen pas-pas da doon dund te ña ca gën a raw mooy ñañ daan tudde ay ambiya ak i ay mursaloon ñoom moom buñ mësaan nekk ci bànneex sax ci lañuy gën a woo yàlla di ko ñaan waxantewuñ nag buñ demee ba ay ndog di leen dëgmal seydina ayuba ngi nii alayhi salaam ba muy laata ñaan yàlla ca jàngoro jo ko daloon daanaka dem na ba ay bokkam amatuñ ci moom yaakaar mu ne daal yàllaa ko bind moo ko moom lu ko neex la koy teg kon du ko ne teggil mukk ci àdduna waaye bañ ko ne xanaa xamoo ne yàlla mi ngay wax moom mi ngi fi te boo ko ñaanee mu wuyu la la na yàlla lii ma dal daal euh, xam naa ne daa ñëw ci sa coobare ak sab dogal rek su fekkee dañ ngay gën ci man xam nga su gënut ci man xam nga waaye fa saasa fastajabna lahu fa kashafna ma bihi min durrin wa aataynaahu ahlahu wa mislahu maahum rahmatan min indina waaye nag nee na loolu ki ko jar a defal mooy koo xam ne day jékki-jékki taxaw geesuwaat na lii sotti lépp yàlla wa day dal ñi nga xam ne dañuy def yàlla plan B misaal nañ ko ay yoon waaye ay mbooloo ñu naan nañ ko fàttali euh, am na ñooñ dañuy dugg ci fafal naaw avion jaww ji neex lool walla gaal waaye avion daal moo ëpp lu koy dugg ci waa réew mi moom di tukki suy dogo dara amut day mel ne yaa ngi sa biir néeg waaye su karang-karang tàmbalee ba ñiy dawal avion bi seen bopp amatuñ paxe da ngay daal di gis kenn ku nekk dem ca lam xam lam xam moom mooy lan yàlla ak nu mën tudd yàlla waaye dañuy ñaan daal dangay gis ku nekk di ñaan mooy fi mu wax ci alquran naan huwa alladi yusayirukum fi lbarri walbaxar avion ci kaw jéere ji la nekk suuf si lay tiim xatta ida kuntum fi lfulki wa jarayna bihim birihin tayibatin wa farixuu biha jaatha riixun aasif wa jaahum almawju min kulli makan wa zannu annahum uxiita bihim su boobaa nag daawu llaha muxlisina lahu ddin la in anjaytana min hadihi la nakunanna min ash-shakirin ku nekk dugg ca lam xam waaye bu avion bi wàccee ci jàmm wala gaal gi ci jàmm bu nan cëpp bala moo taxaw tàccu lañ koy gunge naan bii pilote kenn mësu ko gis kii faw ñu dekkaware ko moo daq dawal avion ci kaw suuf moo ne pilote ba leen gënoon a jàq fuuf moo tax mu ne falamma anjaahum ida hum yabguuna fi l ardi bi gayri l xaq waaye lam ko lam ca li mooy ya ayuha nnaas na ñëpp xam ne ba ngeen nekk gut ci njàqar yàlla xamoon na bi ngeen nekkee ci njàqar yàlla xam na ba wàllu leen waaye ginnaaw bi it ñi ngeen def gis na ko te dana leen ko réglé yaa ayuha nnaasu innama baxyukum ala anfusikum mataa alxayaati dunia summa ilayna marjiukum fa nunabbiukum bi ma kuntum taamaluun moo tax woote bisub cant sant yàlla rek yàlla daal jaadu na moo ne soxnaa ngi nii tollub diggante ba war a matu li may bëgg a wax yàlla nay soree lool nag waaye léeg-léeg mu dem ba ñépp jaaxle lool am na sax ñu naa ko jàngal lii jàngal laa jàngal lii jàngal laa loolu lépp kat ay turi suñu borom la wala ay melokaanam rek ndax ñi ko doon topp naa ko yanki sa yaareelu weer ak yetteelu weer ba bañ naa ko mat na di ko xool di ko jox ay firnde yu mën a teg loxo téewut dañuy toog ba yàgg rek ñoom ñëpp buñ ko waxut waa ji di ndaw si jigéen ji di ko dégg ak i bokkam it danañ ko wax ci seenam xel ne lii di yàlla rek a ci moo tax mel na mag firi na ko booba daal am paj malegut nii ci senegaal dafa yóbbu ku wéradi ñu di ko topp ba yàgg ñu ne ko dangay ñëw ñu téye ko ñu téye ko bis bi seen ñu xëy si fa ñëw fa bëccëg ñëw fa ngoon ba yàgg ñu ne ko maire noonu lañ ko wooyee maire daal kii yàlla ci des mu ne acam yéen seen ŋaat-ŋaat ji seen ñàngal gi yépp ndeket yàlla rekk ngeen yaakaar ku dul ñoom itam yàlla la yaakaar moo tax ma ne yàlla du nangu mukk plan B dañ koy def plan A yam ca cap waaye bokk yi nit a ngi ne koo xam ne it euh, ak wéradéem kenn ku am spécialité ci am paj maanaa am wat goo jël ci nit di ko faj xool na wet gu nekk gisul li ko daal bokk yi lañ amoon jeex tàkk xanaa foofa njàqare daa mel ne sanc na fa waaye buñ ci amatu yaakaar da dégg ñu ne ah léegi daal nañ ko bàyyi ci loxo yàlla mel na yàlla moom dangay ngay jéem a jéem a jéem ba tëli daal di koy woo léeg-léeg nit woo ko mu ñëw mu teg ci bëtam ku ko moom dana wuyu moom waaye léeg-léeg mu wan nit ne ko gis naa dégg naa nit teg ci bëtam waaye bokk yi yàllaa ci des moom boo ko déggee ci fu mel noonu moom nit ñi amatuñ ci yaakaar kon pas-pas bañ amoon seen diggante yàlla ne man na lu nekk sañ na lu nekk ana fu mu féete moo tax la weesu ak lay ñëw lépp bee boo ñu fab yàlla rek daf ko wéttal daf ko wéeru waañ xam ne foo xool séenoo fa kenn moo fa nekk moom ñi ne fi it ku fi jóge moo la fi wóotu su ko defee cant gi moom lu war a war war a war a war la buñ ko moomale kenn ku dul yàlla ndax am na fi barab ñoo xam ne tàmbali woon nañ di defaraat seen bunt yi ñuy liggéeyee fa ñuy liggéeyee ñuy yeesalaat bunt yi di ko def mu gën a dëgër ndax mu naqare dajj saabu bu dajj waree am na ñoo xam ne it seen dëkkuwaay ya nekkoon barab sàngam defaraat nañ ko ngir buur daw jotee ñu daw man faa làqu ji fàtte nañ ne foofe jàll lañ fa fekk moom lañ fiy bàyyi waaye am na ñoo ñit tàmbale woon nañoo rawale seenu njaboot ñoom ñu am fuñ jëm tàmbale woon nañoo rawale seenu njaboot naan nañ génn gaaw dëkk génn dëkk sàngam ndax réew mi lii réew mi laa su fekkee yàlla defee na ko nii mu ko defee nag nañ ko ci sant te ñaan lii ñëw ci kanam lépp lépp di jàmm te nit ñi delloo ci seeni xel ak seeni sago xam ne ni ma ko junjee ci tàmbali bi réew mi mën nañoo xuloo waaye mënuñoo xasante du ci waaso du ci xeet diine ji waxaale wuñ ko li tàggale nit ci waaso sax ndax mën ngeen a bañ a bokk ay aada ndax bu dee ci suñuy aada bu ñuy wat bopp xale sax bopp gone boo ko gisee mën ngaa xàmmee ci xeet bi mu bokk loola du ak tàggoo ñenn ñu ne dañoo jàpp ne lii moo leen jig rek waaye bu ñu tasee ci jëflanteem nit ak nit da ngay xam ne ñëpp benn lañ euh, waxaale wuñ wàllu kàllaamaam loolu moom daa bokk ci kéemtaane suñu borom yi nga xam ne nangul nit ki kàllaamaam ci gëm kattan suñu borom la bokk ak kéemaanam wa min ayaati xalqu samawati wal ard wa ixtilaafu alsinatikum wa alwaanikum inna fi dalika la ayatin lil alamin waaye li leen tàggale ci xeet yooyu yépp mu mel ne dañoo bokkul nga di leen ko xàmmee loolu yit ci xaral suñu borom gi la bokk inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu loolu yàlla ko ci jublu waaye leen li nga xam ne moom dane yéen ñëpp yéen ko bokk muy diine bokk yi nañ ci tey buñ boolee diine ak dara walla bokk dañuy jël dañuy jël loolu jéem ko dugal ci diine waaye buñ buñ jël dara moom bëgg ko dendal ak diine di ci xàjjale aw nit lu ñuy jëli daal nañ jël nañ jëli loola jëm ko dugal ci diine àtte ko euh, suñu borom mi wax ci alquran ne waatasimu bi xablillahi jamian mooy diine moo tax yàlla na fi gëj jàll na ba noppi la ca xew xew na ca li des nag moo joxantewaat loxo rek te xam ne am na diggante bopp tuuti kon caax fàcc caax nag mool yi xam nañ ne bu fàccee ñàkk lu bari mooy xar-xar xar boo xam ne bii jën yi dañ cay sotti dañ cay jaare tuuru mu duuti yor dara ci mbaalam loolu nag kenn ku ci nekk bu lu mel ni di jubati na fas yéene moom bu caax fàcc naree fàcc fekk ma nga ak pusam ak wëñam mu gaaraat boolewaat ba nappkat bi yóbbu lam jële woon ca géej ga wolof sax lépp na ko bari na kuy lekk jën woo xam ne xamut ko mool wu ko napp xamut it tefes gum teere loolu mooy ba muy dem boppam taxutul muy dem boppam kese ca de waaye njariñ la bu dee njariñ la mën naa yaatu ba def fépp kon ñu delloo si xel yi bu baax te jàppaat ci yàlla te wóoluwaat ko te yaakaaraat ko te dëkk ko sant ba faw yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iri